di jaajëfal mbokk yi topp seen tafsirul quran fii ci solution tv ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci topp geeg bàyyi xel gi euh, mbokk yi ñu ngi tolloon ci bi yàlla di woo waa bani israil naan fàttaliku leen xéewal gi ma leen defal ginnaaw nattu bu réy bi tege woon seen kaw mooy na mi leen jàppoon rekk di rey seeni doom di fa desal seeni njaboot yu jigéen te jubluwu ci dara lu dul njaboot gu jigéen boobu jamono ñoom ku ko am danga naan gàcce la ndax dañ na benn jigéen du jiite ñaar du dem ci xare mënul xeex te boobu jamono ku amul doole di xeex bokkoo ci ñiy jël ay décision parce que boobu jamono li lay may nga mën a am pouvoir fa nga mën a xeex soo xeexee gañe ñu xam ne lii nga def sa doole moo la ko may loolu moo nekkoon njàmbaar bu njëkk boobu li ñuy tuddee ay démocratie ay tànn nit ci coobare amul lépp ci doole lañ koy def <coughs> ah bi ñu informé na ne ko ki la nar a donn mu ngi waaj a juddu te bu ñëwee dana yàq sa nguur te Firawna buggul nguur gi jeex muy defi pexe pour bu loolu am pexe mi mu tëral mooy ku mu yaakaar ne góor ngay doon te bu ëllëgee nga mën koo donn mu rey la gis nga de yu dabbi dabbixuuna ña ngay rey abanaakum seen doom yu góor yi tax yoon yastaxyuuna nuy desal nisaakum seen doom yu jigéen yi wa fii daalikum balaaun nee na loolu natt bu rëy la moo tax nguur nguur day dof loo nit firawna baayam nekkul woon buur moom mu ñëw agsi ci nguur bëgg a sax ci nguur ba faw na kenn du ko wuutu ay saltige ki gisaanekat xamal ko ne ko sa nguur mi ngi signalé jeex ki nara a daaneel sa nguur mi ngi juddu góor lay doon te ci dëkk bi la dëkk mu ne du am jël décret def ne ku fi juddu di góor nañ ko rey di rey rek li mu rey ci ay liir ku mu njort ne góor nga ëllëg mën ngaa doon dara mu rey la allahu yàlla mi dara tëwul at mi muy rey at moomu la yontu yàlla Muusaa juddu te mënulu ko dara lu tax mënulu ko dara yàllaa ko gëlëmal yàlla bu bàyyi woon ba na di rey mu njuuy ko juddal ci beneen at bu na reyul day mel ni yàlla daf ko njuuy parce que mënul munul def lu firawna d'accord waaye at bi muy rey ci la yàlla juddul yontu yàlla Muusa def lu tax na mënul rey yontu yàlla Muusa te moonte am ngi jéem a rey ñépp soxna si amul ak moom doom muy soxna Asiya mooy soxna si na soxna su baax su tedd nee nañu ëllëg yow man xiyaam ci soxna ay yonti yàlla Muhammad lay bokk si laxasu ko ne ko at a ngi nii ñuy sëy amuñu doom nañu jël kii def ko mu nekk suñu doom li ñu rey bari na nañ ci seet yàlla lawaayu ko rek lawaayu ko rek ba mu jigi ndeysaan booba seen diggante naqareegul parce que ñoom ñaar seen diggante après dafa soof mooy bi yonti yàlla Moussa màggee mais laataa loolu seen diggante neexoon na ndeysaan laxasu ko ba mu mujj bàyyi ne léegi du rey yonti yàlla Moussa mais soxna si dafa jàpp ne ëllëg mu jëriñ ñu xanaa moom lay jëriñ mais moom firaaw ne moom nit munu koo jëriñ quoi parce que moom mooy yàlla yonti yàlla Moussa yaroo ci keppaaram ba màgg am benn ndog bu ko fa dal mooy ñaar ñu doon xeex mu leen di tàggale dóor kenn ki far mu doxee fa dee loolu sababam la li taxoon mu génn foofu dem ca Madiyana ca dëkk yonti yàlla Shuayb bi muy dellusiwaat nag la la andiwaale nubuwa mooy pouvoir bi war a daaneel firawna allahu akbar pouvoir bi war a daaneel firawna ci la ko àndaale ndeysaan firawna ñëw woote musaa xeeb ko lool bu taxawee ñaari nit a koy topp mu naan kii lii moo bëgg a ñëw contrecarrer sama nguur daal di jëfandikoo nguuram ne dina ko rey gis nga ca tëpp tëpp jooju la la nekk ba suux ca géej ga far Firawna tëpp-tëpp ju mu doon def ak yonti yàlla Moussa di ko won dooleem ak rëyaayam moom moo ca nekk ba labal boppam ci géej gafar moo tax gis nga yàlla bu lay duma noo toll rek noonu la lay duma moo tax mu ne sunu borom ne musal gi ma leen ci musal yéen waa bani Israël ba jël Firawna suub ko ci géej gi xam leen ne xéewal la bu la neexee nga ne wa daalikum nekk na ci loolu mu leen doon teg di rey seeni doom parce que dafa bañ ko ko doon balaa un mbugal balaa un ab nattu min rabbikum bu tukkee ci seen borom adimun bu rëy rëy wala nga ne wa fii daalikum nekk na ci wallu gi ma leen wallu ba labal na mu bàyyi seen doom yami rey wallu googule balaa un di euh, xéewal min rabbikum gu jógee fa seen boroom adimun gu rëy rëy rëy keroog bi ma lebalee firaaw na mu ne loolu xewal gu rëy la parce que li taxoon muy faat ay bakkan lan la bañ ku ko doon képp buur day fiir parce que lim yor du dëgg bu doon dëgg du ci fiir moo tax lu yëngu day defe ne ñàkk na nguuram te loolu firaaw na def na ci lu mën terewul mu ñàkk nguur moo tax loolu ñu ngi koy dénk képp koo xam ne yor nga pouvoir nga teey parce que loolu du lu nit di joxe yàllaa koy joxe ku ci defi pexe torox maa la ko wax tey walla ëllëg waaye ku ci defi pexe torox ndax du lu nit di joxe lu yàlla di joxe la Firawna doon na éliminer ñi ko war a doon ñëpp terewul yàlla indi ki koy donn ca te amu ca benn pexe kon mboolem ñi nga xam ne yàlla jox na leen nguur ñuy defi pexe pour éliminer ñi leen doon nañ ko tàyyi de nañ ko tàyyi de yàlla dafa noppi <laughs> yàlla dafa noppi wa id faraqna bikumul bahra wa fàttalikul id faraqna ba ñu leen xottilee id faraqna ba ñu xottee bikum ci yéen albahra géej gi bu doon fii na xar géej gi la ñuy wax sunu borom nee na waa bani israil fàttaliku leen ba ma leen xottilee géej gi parce que géej kenn du ko xar xam nga xewoon na fi <laughs> jamonoy kunkande damay xar géej ma ne dèjà baat bi rek moo njëkk am problème géej kenn du ko xar mu ne day xar géej ñëpp topp ci nag def ko événement mu nga ne ne xar lu wow lañ koy def xeer mën nañ koo xar bant bu wow bant ni ki garab wala dara mën nañ koo xar waaye loo xam ne lu nooy la loolu duñ ko xar dañ koy xotti ni ki sagar morso duñ ko xar maa ngi xar morso bi kenn du ko wax maa ngi xotti morso bi la ñuy wax ndox dañ koy xotti mais duñ ko xar ndax du lu wow mu ñëw ne maa ngi xar géej si yi def ko événement non mënut a xar géej gi mu naan mën naa koo xar sénégalais moo neex a dofloo wallahi affaire bi nekk eh, affaire bi nekk Sénégal événement un mois tam xarit ma xar géej gi ñu naan ko du dëgg mënu ko ñu naan ah tey leen rek ba xam dina ko def ma ne ñi ngi créer événement bi subhanallah ñu mujj dugal ca préfet <laughs> ñu ne préfet de Dakar da koy wóolu xaw ma ñi non Sénégal Sénégalais moom bëri caaxaan mujj gi ndeysaan ma gis sama mbokk ma <laughs> maam Moxtaar moom moom dafa bëgg jàmm ndeysaan dem seeti ko nag pour mu bañ a <laughs> pour mu bañ a insister ci li muy wax ndax mën na jur fitna ma ne waaye maam Moxtaar yaa baax kii daa mën dara <laughs> kii daa mënal boppam tous tey ma nga nee ca kaso ba di yeewu daawul heure bii la ko waxoon tey gis nga avant ren di dewoon ma ca kaso ba na xar kaso ba génn caaxaan baaxul ah, dem ba la veille mu ne léegi reporté naa ko sax. ma ngi koy aj ba jëmmi jamono ma ne ko ah, ba nga ñëwaat ba xam koo fii fekk di ko nax ñàkk fayda ba bëgg de day na waar sunu borom nag moom nee na xottil naa géej gi yonti yàlla Moussa ak i nitam loolu la koy wax ne ko wa is faraq naa fàttalikul bi ñu xottee bikum ci yéen albaxra géej gi fa an jay naakum ñu musal leen yéen nitu yonti yàlla Moussa ak Moussa ci boppam wa axraq naa ñu labal aala firawna waa kër firawna wa antum te yéen tanzuruuna yéen a ngi koy gis loolu amul ay jamonoy maam la woon de yéen loolu barki démb bi muy xew ci dëkk bi gis ngeen ko Firawna lakkaloon leen huit tey sunu boroom togal na dogalam àtte na Firawna poussé na yonti yàlla Moussa mu génn yonti yàlla Moussa génn mu gëdd ko topp ko bugg koo jaay doole ca doole ji ca la fakkasaloo yàlla nee ma labal ko ci biir ndox mi musal yonti yàlla muusa ak i ñoñam mu ne te yéen waa dëkk bi yéen ñi may waxal pour ngeen gëm loolu dangeen ko fekkee du luñ leen di nettali waaw wa antum tanzuruun yéen ngi doon gis wa id waacadnaa muusa arbaciina laylatan summa attaxadtum alcijla min bacdihi wa antum zaalimuun waaw wa fàttalikul id waacadnaa ba ñu dëhalanteeg muusa yonti yàlla muusa yàlla joxanteeg yonti yàlla muusa ab rendez-vous arbaciina ñeen fukki guddi yoo xam ne daf ko war a def xalwa ci boroomam pour suñu borom jox ko téere tawraat yonent yàlla Muusa bi ko yàlla di jox téere tawlaat téere tawraat comme ni ñuy waxee suñ téere alquran ñeneen ñi naan ko tooraa daf ko imposé mu jël 40 jours yoo xam ne dafay jóge ci dëkk ba bàyyi nit ñi bàyyi famille wam bàyyi léppam 40 jours yu mu xalwa ci yàlla su noppee yàlla war ko jox téere tawraat mu ñëw ci dëkk bi pour gindi jaam ñi fekk na sax mu nekk yonent bi yonti yàlla Muusa defee noonu ci ginnaawam am beneen Muusa bu ko wuutu wuutoo ko ay xërëm ca dëkk ba defar fa benn nag samp nag wa comme aw xërëm nit ñi di jaamu nag wi bàyyi yàlla te moontaan yonti yàlla muusaa moo leen xamaloon yàlla daan leen waar ci kennug yàlla ak bañ koo bokkaaleeg dara am soxla ñaan yàlla am jafe-jafe ñaan yàlla di leen waar ci yi ni mel yonti yàlla Muusa tukki ab diir dem gisanteeg boroomam 40 jours rek laata muy dikk fekk na leen ñu samp ab nag di jaamu nag wa def ko yàlla gis ngeen côté Inde ba léegi ñoom ñi ngi jaamu nag mooy suma taxasumul ijla topp ñu jàpp yëkk wa min baadihi ci ginnaaw demug yonti yàlla Muusa wa antum yéen day zaalimoon a xam ngeen ne way tooñ ngeen te Moussa mi def lii mi ngi tudd Moussa Samiriyu yàlla rek ay karim ñaari Moussa ñoo dajee ci jamono Moussa Kalimullah ak muusa Moussa Samiriyu Moussa laa mooy Moussa bi Firawna yar bi mu màggee yonent la mujj doon Moussa Samiriyu mooy Moussa bi Jibril doon dundal mu màgg nekkub yéefër waa xolal ki jaar ci loxo jibril nekkub yéefër ki jaar ci loxo firawna nekkub yonent nga xam ne namm namm yàlla rek a wóor foo mën a ne ak foo mën a bokk ak ci loo mën a jàpp bu yàlla nammul ci yow njub yàqu nga yàlla na yàlla namm ci ñun yiw mbaax njub yal ko yàlla def yàlla na ñu boole ci xaaj bi mu texeel yàlla bu ñu murtan mukk yàlla bu ñu juubu Moussa Samiri yu dafa judd ñu sànni ko ca àll ba ndeyam buggul bàyyul buggul ñu sànni ca àll ba ay nag di romb ay suufu garab yàlla yebal Jibril ne ko kii doomu aadama la demal nga teral ko Jibril yëkkati ko ñu teg ko ci ay suufu garab xaj lekk ko tan këfu ko bukki lekk ko gaynde lekk ko saafaandu këfu ko te ne jëlu ko dara laalu ko mu ne ca ron garab ya jibril di ko fa fekk di ko nàmpal meew muy dund jibril di dem di ñëw ci moom ci lii la nekk ba ne ci féet di mponkal Moussa mële tamit Moussa kalimullah juddu yaayam sànni ko parce que buggul ñu fekk ko ci këram ñu rey ko kee ña ngi ko sànni ca garab yi ca jéeri ja Moussa mii ñu sànni ko ca géej ga gaal ga di pempemi fi ñu ko dugal di pempemi di pempemi ba waa kër Firawna for ko yóbbu ko ca palais Firawna ba kii Jibril for ko kii Firaaw naa ngi koy dundal ñu woo yaayam mu koy nàmpal ñu di ko fay parce que daan nëbbut wanu leen ne may yaayam Firaaw na di ko fay mu koy nàmpalal xale bi parce que boobu jabar ji adopté na ko ba pare ne ko nag ko may mu nekk doomam léegi nag ñu ut ku koy nàmpal ñu joxaat leen yaayu yonti yàlla Moussa di ko nàmpal te xamuñu ko ñu koy fay xaalisam muy nàmpal doomam mu nekk ca pale Firaaw na ba quelque temps yaayam ne leen man nag mënuma koo bàyyi fii da ngeen may bàyyi ma dellu sama kër man faa nàmpale xale bi mu dellu këram nàmpal ko ba mu fer mu delloo waat ko kër firaaw na boobu jamono Moussa Samiri yu ma la Jibril ma ngi koy dundal ca àll ba moom it di ko jox meew muy lekk pour mën a màgg ñaari muusa yi bin màggee ñoo dajeewaat ci dëkk bi kii di wooteel yàlla kii di wooteel seytaane muusa mi génnee na di wooteel yàlla Moussa mi génnee ci Jibril di wooteel seytaane xoolal lii rek. bi muusa mii demee di giseeg yàlla Moussa la ci la Moussa saamir yu ñëw toog fa defar fa yàlla ab xërëm ne kaay leen jaamu ko balaa Moussa ñëw lii la muusa wuti woon xam nga lii kenn mësu koo gis loolu leen sunu borom di fàttali naan leen naan leen suma taqastumul a topp ñu jàpp yëkk wa min baadihi ginnaaw yonti yàlla Moussa wa antum yéen a way tooñ ngeen ah Moussa saamiru yu ne leen ko am soxla boo ñaanee ci nag wi mu dox ku am aajo boo ci ñaanee mu dox boo amee njàq rek boo ci ñaanee mu dox gis nga yii mu leen dig am ñu ko gëm nag daldi ca sëgg bu nu ñëwaatee ñu yeggale ko incha allah sëriñ bu ñu teg fii sunu baaraam bu subaak jàmm ñu ñëw yeggale aaya bi ci suma afawna ankum min baadi dalika laallakum tashkurun sadaqallahu alazim ba subaak jàmm incha wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu